Euh, tey euh, en tant que journaliste lan ngay xaar ci dossier bi véritablement est-ce que nekkoo di amoo sentiment que état bu Sénégal euh, wala gouvernement Macky Sall bokk dafa nekk di nasaxal liberté d'expression ak liberté d'opinion pure et dure. waa xam nga nag léegi foofu laa jëm ci analyse bi loolu amee ba pare nag. Hmm. dérèglement yooyu am yëpp ci système bi. Hmm. ñu arrêté ay opposants l'opposition naturelle. Hmm. ñu bëri ci presse bi dugg ci nguur gi dafay am benn vide. léegi xam nga loolu souvent li muy jur nag. Hmm. mooy genre kaw. d'accord moo jur benn opposition boo xam ne bii ni ñoom daanaka li ñuy doxee dafay mel ni ci kaw la ñuy bëgg. Hmm. waaw seen élément de langage ak lépp ci manipulation lañ koy teg ak ci wax joo xam ne du dëgg ak nu ñu jotee ci ci ci ci nguur gi rek baax na loolu lay jur te loolu lañ gis dangay taxaw yow benn chef de l'opposition boo xam ne fii nii lu bëri li muy wax du dëgg day xool ne réew mi pétrole na ko taal. bu ko neexee mu taxaw wax pétrole bi de 10 pour cent lañ ci am kii wax ci loo xam ay borom xam-xam ñooy taxaw wan ko li nga wax nii amut ba si ñoo xam ne ñu mel ni mari taw ñaar lañ gën a jege sax ne ko saa yi li nga wax amut. Hmm. parce que est du loolu dañ ciy jublu ñoom jël affaire pétrole bi booyalee ko réew par exemple. Hmm. que souci transparence lañ ci jublu. d'accord mais beneen mais beneen côté bi aussi. a vu des journalistes yoo xam ne comme ni nga ko waxee. dama ne loolu photo Macky Sall la xam nga. Hmm. mu am benn vide la nature a horreur du vide mais vide boobu dafa am ñu ci engouffré wu business yooyu duggee la activistes yi feeñ ci réseaux sociaux yi. mooy hmm. waa joo xam ne dafay takk ay caméra rek moom yuuxuti rek xamul éthique xamul déontologie et puis lan nga ciy gis man bi ñuy créé faatu Tampi. Hmm. Fouta Tampi xaw ma la tudd. dama bind benn poste boobu waa opposition bi ñoo ko doon jàppale mais yéen a def lu dangereux. la mooy Fouta Tampi y' a une situation de pauvreté ou de misère sociale qui soit spécifique au Fouta et qui ne mhm. soit pas vécue à Tambacounda. Mhm. nga xam ne Kédougou la ñuy seddoo or ba ñi fa dëkk duñ ko gis ba ngeen di wax Fouta Tampi mais li ci jublu mooy waaye ne Macky Sall mbokk tukkulóor mi sax weddi nañ ko c' est machiavélique c' est un élément de langage choisir ko pour manipuler ay nit foofu. waaw ah bu wax ne Macky Sall non deseetul kenn hmm. nga xool xale bu jigéen bi rek boo ko xoolee rek faat fuuta tampe mi rek nga xam ne kii ay motivation du idéologique wala yooyu c'est pas Rosa Luxembourg ah ci yéen ci yéen la nekk ceer <laughs> nag yow dafa mel ne dafa mel ne nga xeeb euh, combat bi ndaw si di mën a ah? non fu la mujj fa la mujj fu mujj après dem na ci mag yi way deel xas ñoom wëlbatiku seen kaw waaw parce que opposition dafay am da nga koy teg ci idéologie ak programme mais du ci ay affaire données kii clivage personnel. da nga yaakaar ne suñu opposition bi ñu am nii nekkuñu ci tànk yooyu. non par rapport li ma gis man ñu ko daan opposé bu njëkk. Hmm. dégg nga tëgg yàlla offre bi dafa des offre programmatique bi. Hmm. dafa des et que euh, peut-être leen may sens mooy précédent yi ma la wax ci Macky Sall ni mu doon yoree réew mi. Hmm. waaw. à part de foofu nag laa la wax ñoom raccourci la ñuy wut façon oppo d'opposant yëpp bien sûr. yaa a un opposant comme Abdou mbay très responsable am niveau d'analyse bu élevé buy wax ak yow y a un opposant bëri nañ ci opposant bi ay nit ñoo xam ne nitu qualité lañ même waa parti démocratique sénégalais su may xoolee ñoom la Macky tooñ parti démocratique sénégalais ñoom la tooñ parce que c'était l'opposition naturelle à Macky Sall normalement présidentielle 2019 Macky Sall Karim Wade la war a jàkkaarloo ak Khalifa Sall même Khalifa Sall sax damay gis parfois démarche am ba tey dafa am lu muy conservé mm. mooy républicain la am na ay barrières yoo xam ne da koo franchir ci waxin. ak ci mm. jëfin ba tey. Mm. waaw parce que loolu mu ñu jig ba fii laa wax. dégg nga su ma la su ma la comprendre dafa mel ne. peut-être Ousmane Sonko. oui ki ci gën a radical ci ñoom mooy Ousmane Sonko. Ousmane Sonko tam. yoon bi mu jëm baaxul loolu nga bëgg a wax. non ah man de personnellement Thierno Diop. Mm. dafa am lu ma seetlu. muy. waaw man su ma damay critiquer kii Macky lu bari kenn du ma saaga lu bari ay ñett ñaar mën nañu ma saaga ma ne ñii xamuñu moo tax. Euh, Khalifa Sall même chose waaye boo tuddee Ousmane Sonko mët bi lay saaga noonu. loolu vous ne croyez pas que lii amul benn main invisible bu koy organiser pour xuuxal nit ñi fàtte leen ñi ay sëtu njaajaan njaalañ ba defe ne xuux tàppat na leen far ñu daw ne ñii du ñu daw nga defe ne mën nañu xuuxal ñun te mënuñu mënuñu xuuxal. Hmm. après damay gis ne lii yaa mais main invisible parce que populisme ci yooyu lay doxee dégg nga populisme da ngay tiital nit ñi da ngay andi pensée unique. Hmm. dégg nga àndal ak man wala ma réduire la à zéro du ñu nangu débat di de ñoom dégg nga vous dañuy am lu ñaan euh, pensée unique dégg waxal li ma neex rek wala du ma ànd ak yow après loolu du dem tamit. dañuy hmm. waxtaan rek. lan moo war nekk la meilleure méthode. pour vraiment que opposition bi aussi ñuy ñuy teg problème yi ci table bi ak xam-xam et ak populisme. waaw léegi nag qu'est-ce qu'on doit faire. concrètement waaw léegi nag léegi Ousmane Sonko. Hmm. bi may bi ma koy euh, man yàlla dimbali ci sama carrière journaliste bokk naa si ñi ko daan proposé te xamuma sax nekk naa at atu yéen a kaay mel ni Actu joxuñ ma turu coordonnateur mais liggéey bi yëpp maa ngi daan coordonné de fait ba xëy daan dem assemblée maa leen dee jël Ousmane Sonko mi il est très pertinent pourtant waxul lu ma jaaxal sax de mais pour équilibrer information rek boobu ma taxoon kon xam nga suñu objectif ak lui bon mm-hmm. léegi man ma bëgg ko ak ma bañ ko réalité politique la. Mm-hmm. kii kilifa la ko waa dafa am njaboot. ñi ànd ak Ousmane Sonko am na ñu ma dàq jàng fuuf ëpp ma leen gënu ma leen rafet juddu ay sénégalais comme man sénégalais yëpp sax rafet juddu ci li ma jàpp quoi. ñëpp a ñëpp sénégalais lañ ay sénégalais la ànd ak. bon mais bu ñu àndut ak ñoom idée tam ay sénégalais lañ ànd ak moom. il faut ñu respecter leen dégg nga. Mm-hmm. ànd ak Macky Sall tam ay sénégalais lañ kon ñun ñoo bokk ay maam muñ tojante ay bopp léegi bi ci maam Lamine Gueye ak Senghor Tolo dañoo waxtaan dépassé situation bi ci Abdou Diouf suñu bàyyi wala sax suñu maam ak maam ab Ablaye Wade Tolo dañoo waxtaan dépassé situation léegi tey Macky Sall ak Ousmane Sonko ak ñoom ñi ci toll ñoo war a xool la la ñuy génne ci situation bi. yaakaar nga ne mën nañ ko mën nañ ko réussir. ci waxtaan lépp la waxtaan mën a permettre. Hmm. lépp lépp la waxtaan mën a permettre. mais waxtaan day fekk ñaari camp yëpp d' accord ci waxtaan. non non ah, ah. non non dama de xoolal. Hmm, hmm. gis nga boo xoolee Ablaye Wade mi daan dem Maka Kolibantang ñu koy agressé ma toog nenn kan mi mu seeti woon doomam mari am sens mu ñëw di gis fi Ablaye Wade maa ko gunge dégg nga buy dem pale ma xam Ablaye lu mu daj Maka Kolibantang tuuti bakkanam des fa ak ndànd violence yi amoon ci temps yooyu même même Macky Sall mi tey buy waxtaan ak Karim Wade bëggoon nañu ko fi yóbbu kaso moom tam da nga ko fàtte ci nguur mm. Abdoulaye Wade bon li mu def Karim rafetloo wuñ ko mais ñu ngi waxtaan parce que à la kulli àll toutes les guerres se règlent autour de la table de négociation. d'accord léegi Ousmane Sonko kilifa la Macky Sall kilifa la ñoom jàng nañ loo xam ne man jànguma ko. nañu waxtaan ngir yàlla parce que réew mi warul tojee seen loxo. mais Thierno il s'agit du Sénégal. d' accord mais su ma lay su ma lay dégg on a comme l' impression que euh, ñi nekk ñi ànd ak Ousmane Sonko ba ci Ousmane Sonko moom ci boppam amul euh, nekkul républicain. Hein? par rapport ak ci discours bi ci doxalin beeg yooyu c' est ça que vous voulez dire. non bëri na da jël Covid am na fi. Hmm. Covid am na fi. Hmm. dañuy jël ay éléments de langage minimiser Covid bi. li pourtant moom demoon na toog ak Macky Sall ci palais bi. ci ci bi ko Macky wooyee ci Covid bi mu moom ba pare nag. Ah. est-ce que loolu nekkul un acte républicain bu mu posé mu defee loolu ba pare laa wax. Hmm. xam nga Covid bi àdduna yëpp ñaan toog leen seen kër. Hmm. bu leen dem sax jàkk ji donte jullit ngeen nga taxaw nga jël sa micro ngay def leen julli ji ba mu neex leen. Hmm. yaag ñi nga ànd ak yëpp loolu ngeen doon waxee boobu est-ce que duma ci jàngat nit ñi dañoo jàpp ne Sénégal comme dëkk diine la. dañoo bëgg a tàngal xol nit ñi ñu génn def ay manifestation andi ay situation de trouble kilifa diine yi sax ne toog leen yow ngay dem leen julli ji dañuy waxtaan rek foofu te ay ñi lay toog leen ay docteur la yoo xam ne loolu ñoom ñoo ko jàng ñoo ko xam ay sénégalais comme yow yéen a bokkoon école yi ngeen doon jàngee ay médecin lañ ñu ne toog leen seen kër ngay dem bu leen toog la loolu lay nuru ma jox la exemple boobu rek parce que sans situation de comme ni mu ko defee dem palais hmm. dafa laaj réew mi méngoo léegi tam Macky Sall dafa am boo xoolee benn affaire bu ñu ko jëwee nit bu ñu la sedd ci boo du mën a sedd ci gaalu xaj parce que président la quoi. Mm. mais daanaka yu mel ne ko olof jaay di waxee. xam mm, nga a compris. a wax mooy fi ñu lay séntu bu ñu la wax fekk. yow bëgg a yow réew mi da ko bëgg a sax moomeel ma dëgg yàlla nag lii borom xam-xam bu mel ma Madior Fall wax ci troisième mandat yow nga wax ko ci seen livre ñoom Seydou Gueye wax ko. Mm. dégg bul ngay may gars yi occasion. <laughs> mais ñooñu ko waxoon noonu ñoo bëgg a wëlbatiku bëgg a théoriser sénégalais yi. la wax bu bul may ci wàllu troisième mandat bi xool. léegi il ne parle plus de troisième candidature il parle de deuxième quinquennat. loolu aussi Idrissa Seck mu nekk ci problématique. Idrissa Seck mu nekk ci wetam nee na. la présidence de la République est une créature constitutionnelle à incarnation humaine variable. avant-hier c'était Senghor. Hmm. hier c'était Abdou Diouf aujourd'hui c'est Wade tey bon noonu la ko waxee ci jamono yooyu xam nga. Hmm. donc Macky Sall il faut mu xam ne affaire bi. dafa il faut du du kii quoi lu ñu naan. Euh, mm. nul n'est indispensable. du moomeel quoi. du moomeel. Mm. ndénkaane du moomeel ni ko woykat bi di waxee. Mm. yaa ngi dégg est-ce que du moomeel li ndénkaane la léegi moom tey on lui saurait gré vraiment de mettre en place toutes les conditions yi koy permettre mu def benn sortie honorable mais loolu tam laa la wax il faut que opposition gunge ko ci. d'accord dégg nga. Mm-hmm. dooy affaire xiiroo ak affaire ŋaayoo te situation lu mu complexe complexe. am na solution. d' accord d' accord ci li intéressé peut-être kaw Pape Alé mm. on a comme l'impression